jot du fa réer te fulaak fay dem moo ci ñoom waa Saalum wéy wi yéena ko moom jot du fa réer te fulaak fay dem moo ci ñoom waa Kaolack wéy wi yéena ko moom Ya, li ñëpp doon xaar nga tudd Sidi Diop biir Kaolack le rendez-vous est pris incha allah lan la ñu ko rëtee Sidi Diop biir kër de ville lan la ñu ko rëtee Sidi Diop war na jox seen léwénal ba pare bu ba tey nag ñi ngi may woon naan ma Sidi yow bi nga ñu woyalee sam, saamu bi ba tey gisuñu la man leen lu jot rek di yokk léegi suñu borom dogal na ko lan la ñu ko rëtee foofu ca kër de ville ma ànd ci nag ay bu mag bi waa Sëkkër étoile donc maa ngi woo waa Ndar bu ndaw waa Sara waa Kaduna waa Léwénal Bédouard ah waa Ndorong kustan kaza vin pongoren gan gawan tekwar a mai wonye puakun, kun a kabato ke akli ko wuri pase wa do fa tafre a bakola bagade wona nyep salum salbi e xewne lande ko rete fof ci keur de vin man fi di jop wara ñu pegel lepp kon ñu ko defi chaque année du dañen man nam dina leen wonni ma leen raw pire